quinze milliards yi nga xamante ni jox nañ ko crédit hôtelier touristique gis nañ ni cinq milliards yi kenn xamul fu mu dugg yow si biir secteur bi nga nekk ma lay laaj dama la est-ce que nekkul ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir secteur bi ñoom ñoo jëfandikoo xaalis bi telle sorte que ba nga xamante ni système bi secteur bi développé wul ma loolu kay. c'est clair non non je suis d'accord avec toi naa la ci répondre. waaw xam nga man. man je ne suis pas décisionnaire. waaw comprendre nga man man du man may décider nan la ñuy octroyer les fonds. Euh, donné par l'État sénégalais c'est pas moi ci ay base yu leer lañ koy teg dañ ne hôtel boo xamante ne impacté wu na ci Covid bi da ngay indi sa bilan social teg ko indi say charge fixe teg ko état accompagné la à hauteur de temps pour que employé fa nekk ñu bañ leen dàq fay leen à hauteur de temps de quinze pour cent sur les trois mois d'habilitation que l'État euh, ci. ci que l'État a mis en place à l'époque léegi nag auto établissement yu bëri am na ñu ko respecté am na ñu ko respecté wul am na ñoo xam ne jox nañ leen xaalis ñu empoché ko dàq ay employé dégg nga ma ba tàyyi ma wax ko dans les dans les médias télé yu nekk critiqué naa ko wax euh, naa ko tudd naa sax ay hôtel sax yu ko def mhm. tudd naa leen kon kañ man xam nga ne man je suis en phase avec toi man d'accorduma bu fekkee ne loolu am na nit ñi jël xaalis bi lekk ko dugal ko seen d'accord